salaamaaleykum waaw maaleykum salaam maa leen di siyaar yéen ñëpp. man maa ngi tudd Ndey Xuma. waaw li may njëkk a wax tamit mooy sama goro boobu di Astou Gawane Fall. yaa maa li ma mm, maa kuutaloon waaw. waaw di ko ñaanal moom moomu ci weeru koor gi mu dem. yàlla na mottale ndawam ca àjjana ja. Mm-hmm. léegi li ñu bëgg a laaj mooy. sa doom ci kàddu yi mu wax. wax na ni moom daf laa joxoon kàddu ne la koo ko wutal rek. doy na ko mhm. yow yaa wuti ji woon mhm. ngay wuti lan ngeen bokk ak bu koy wut lan moo taxoon nga dugg ci moom laaj loolu dabu woon ci moom ba tax nga dugg ci moom waaw li ma dabu ci woon ci moom mooy eggale la yaayam dañoo bokkoon dëkk fii nii ngeen ñëw tey mhm. dëkkin bu rafet muy sama xarit lool nag di kenn ci man li may wax it day génn télé te doomu aadama ñu bari dañ koy seetaan te loolu it danañ xam ne lii wax bu dëggu la ci kaw loolu sama doom it ah maa ngi koy ñaanal yàlla rek doom kenn du ko gërëm dama koy bàyyi suñu borom ndax lu jafe ci gone yi la def waaw ah, bi mu toogee ba bëgg soxna tamit comme noonu mu leen ko waxee ci gàttal da doon jàng ginnaaw yàlla yërëm ma moo taxit mu arrêté jàngam bi mu toogee ba bëgg soxnaat lii la ma wax man de yaay dama bëgg soxna ndax dëgg yàlla bëgguma def lu bon waaye nag yaay xoolal yow miy dund ak moom ci kër gi ku la doy rek doy na ma ci noonu ci laa jóge xalaat après bi ma xalaatee tamit wax dëgg yàlla xalaat bi ci ci bàjjanam la njëkk a tàbbi bi bi ma ko ko waxee moom mu rafetlu ko lool xamal ma ne ma yaakaar naa ne yaayam bu ko yëgee dana ko rafetlu lool na ko mu ko wax yaayam yaayam rafetlu ko lool nag ci laa jóge xam ne yaayam it sëykat la te yàgg nañ lool mbëggeel gi ma bëgg ndeyam dama bëggoon lii moo ci neex yàlla bëggoon mu gën a rafet pare ma dem ci yaayam keroog bi may dem wax dëgg yàlla dama dem jënd portable fukki junneeg juróom mm-hmm. am ci yéene lool ndax dégg naa ndeyam rafetlu na ko mm-hmm. Ah, kéro gi bama ma yalla momu tim dama ko fekk ci jumaa ji mu tok fala doon waxtane ak mom ak bàjjanam mm-hmm. nek seen ko man lima andi sama ñaari doom de ma andi mom wax deug yalla yalla nit ki boy wax mm-hmm. na nga wax ta xam yalla rek la ti te ko mm-hmm. de da ngay laloo sa da nang ko fekk de kon lu mu metti metti man lu mënoon a wit damay xamne rek damay wax ta yalla tax kéro bi ma demee jumaa ja wax ko yaay mi daf ma kott damay waay yaama ma bëgg way mu ne ko billahi suma la bëggul ba numay def man de sama ñaari doom yi kessa moo andi muy assu gawan far ak pap mu rafetlu ko lool mu dindi téléphone bi teg ci loxom nako li na dama koy dëgërale sama carte rek boobu ëllëgé ko wax ne ko sama carte raw na ma ñu wax waxtaan maak moom fekk portable bi def naa ci piisu orange tigo ci laa daal di wàññee ko ñibisi bi ma ñëwee nag am naay bokk ci laa daal ndax man booba loolu dëgërale wax la rek mm. bi ma ñëwee sama mag bu góor wa papay sama dom bi ak ki papay jidlem la wa papay jidlem bi tay ñun ñep ñu bokk toog rafetlu ko kër gi seen ginnaw am na benn baab fi ne dafa nekk tay fan yi kër da naka yor na baat ci kër gi ma demé waxtane ko ko moom it ma xamal ne ma lu baax kenn du ko def di ci yeex comme ko yobbu nga fa lol dal nday nan fexé rek baye baab mi sama domit it wax dëgg yalla na ma lu baax kenn du ko def di yeex dal li ma bëgg mom moy lolou bu ko xeeb nañ ci daari taxaw rek ñëwee wax dëgg yalla la ma fa njëkk a yóbbu te yàlla rek tax rek rek lu ma fa yóbbu sama yéene la waaye du luñ ma laaj keroog bi nga xamee ne nee naa yaayam lan laa lay jox yaayam dafa ma xamal ne ma ñaari doom yu ma jur la laajuma la dara du luñ ma limal sama yéene laa fa yóbbu waaye laajuñu ma ko ma ma ma dem kilifa yi yóbbu keroog bi ñu demee wax dëgg yàlla dañ ne leen bu fi bu fi desee ci yéen la bu fi desee ci yéen la bi newee wax ma ko ñu dem ba jub koor gi kilifa yi nga xam ne ñoo kilifa ñun ñëpp daan ma wax dëgg yàlla su ma sañoon màggal wala gaa tamxarit gi xale bi ñëw fekk jëkkëram it amoon na yéene lool ndax dane ma damay bàyyi rek ba defaral ko néeg salle bi ak néeg kilifa yi daan ne déedéet dara paasewul après ci la dem yore ba ñuy dem bàjjanam bi bokk ak papaam ndey ak baay ndax lu rafet moom ndax damaa yàgg ak seen famille boobu. fii bi ma fii dëkk ah, ñetti kër laa fi fekk ñeenti kër laa fi fekk bi ko juróomeel man la muy seen famille ñoom. kii nga mën a seere ci euh, bi euh, waaw lool it li ma ci mën a seere te yàlla rek tax sama ñaari doom lañ gisuma kenn ku ma jaral wax lu dul noonu masuma gis ñoom ñaar ay xuloo wala dara comme nu mu la ko waxee noonu rek xale bi xale la. te xale moom yàpp barmal la lu mu duuf duuf ra tax daana toog ba mu yàgg rek comme ni mu la waxee ni def yëfi xaleem yooyu waaw su ko defeet ah jekki-jekki dem comme nu mu la ko waxee ci gàttal rek dem demam yooyu mu la expliqué rek noonu lay demee bu mujj bii nag wax dëgg yàlla fekku ma fi daf ma fekk ma xëy bàyyi leen ci jàmm mu dem marché bi ma demee marché lu amul seede neexul suur boobu bàjjanam ñoo bokk benn bérébu toogukaay ma xëy jëndal ko basaab bu tooy fanweer jëndal ko tamit naajo tegal sama goro après saan ci la ñëw papaam fekkuma fi sama borom kër yëkkati dépense jox ko 1000 francs mi fray nak ci ba diw ak li fi ne lepp ngi fi mom xana lay dem jënd ndugg mu sew ak yoy ci la dem baaj bajjanam tassé ak mom ci mal bi nako wa yow sa yaay yow jëndal la le nga togg doma da mu andat ak bajjanam jour bo fekk ma massé limay wax may wax dafa dana am ño xane dana ko dégg nakam sétan nañ ko bim ñëwé na ma yaay ma am ma tay mbaq na la ay sama borom kër mo choisir doma da mané ko noppal na len de jëlat bisab bi jaay ko 100 francs tamit mu taxaw ni wax deug yalla lok man dan ne ma yaay am na lu des de bàjjana ma ngi ma ko lan mo des mu ne ma kërin ma yëkkati ñaar fukk ak juróom jox ko mu taxaw ba mu yàgg ma yaay des na de ma ko yow lan mo des mu ma paas ma yëkkati fukk ak juróom jox ko paas mu ma yaay des na de ma ko lan mo des mu ma sa bu góor ba daf ma maa yóbbante 100 francs pour ma jëndal ko gerte dafa ne ci xelam bu dogee mané ko yow lal sax ko yaay am bo jëndal ko ko ci kaw lolou ci la xol gis nduggam tubaarkàlla rafet lool mais amul amul ma xool amul tamaate doom ma ne ko yow doo jënd tamaate doom dem ba koy jox ma ne ko garaawul ndax yow mun ngaa dem jënd tamaate te boo ko jëndee boo ñëwee euh, jënd tamaate ju ñorut dafa bari instant yi man maa dem peeseer ko tamaate mu ko peesale tamaate tamit dégg naa bàjjanam di ko di ko di ko gën a ñaaxaat ci ni mu gisee ma defeek moom ko góor góorgóorlu bu baax sa yaay daf laa bëgg te dafa bëgg ngóoram boobu nee na ma eh ndax man ñu bari ma sa dañ ma daan wax nag sa sët la kaf gu may kaf ak moom ci la siggi daan ne ma eh ndax xuma eh, mbaq naa la tey doo lekk ceebu jën ma ne ko yéen a xam foofu moom loolu laa tàggatoog sama gorom ci suur bi mu demee mhm. man loolu laa tàggatoog moom te yàlla rek moo ma tax di wax bu neexoon yàlla sama kàddu du egg du egg de loolu laa tàggatoog sama gorom mhm. kon yeneen yi fi jëkkëram débat bi ma ñëwee moom egg si teg sama suul ne wàcc ci laa dégg bàjjanam egg si ak ak sama doom ma dégg bàjjanam ñu naan dem na ma ne fu mu dem ñu ne dem na loolu tamit wax dëgg yàlla laaj naa sama doom ci la ma tegal na ma wax dëgg yàlla jotewuñu dara de man dafa yanu sax nag ay loxoom moom mii dafa jël loxo yi yanu na ma seet tët tët ma daal meer jaaxle naa trop trop franchement jaaxle naa ma ne ndax la mu ne man asu li muy def xaw ma lan la mu ne asu dama ko dama bool bi daal laa ko ne dama raxas bool bi ak duus bi ci la dema aw ma oma ah, oh, ma jox ko 100 francs mu jëli potu oma bi ñew def ci ndox ma ne ko li mënu ko raxas da nga kon ba mer ñu ci la asu demee ma dem xol ah boba légui ma ngi wër boba légui nak momi mi saa yu xëyee nurootul ni sax saa yu xëyee rek wërina affaire bi tamit wax dëgg yalla nek luñu ñu bett lool ndax xalaa waa xalaatuñu won li mukk mukk mukk parce que dañoo defoon ni doon def di dem di dik rek may suma ma sama borom kër ku ne xamna na ne instant yi liggéey bi mom dafa taxaw su xëyee moo papaam dem wëri may bu ma xëyee dem marché lu ma taqale jox xale yi ñu ndugg indi. aw lëndi boobu wax dëgg yàlla man maa xëy na ko man damaa bëggoon daal diggalu mag ak morom ji ndax mag day gis lu bari damaa bëgg daal soo xëyee tey ci lënd bi na nga dem gendarmerie nga déclaré ko moom it gan la fi xamu ci ci la ne ma fan laay dem ma ne ko boo demee jànnatu nga laaj waaw waaw nga laaj laajte police su jànnatu ci laa ko tegtal. bi ma ko tegtalee noonu tamit lundi boobu bi ma ñibbisee xam nga ni ju koor day sonn bi ma ñëwee damaa toog dallu yàlla dogal moom it mu ñëw heure bu ñëwaan rek day tombeek naan ndox rek dog jot ci la ko amet xaritam bi ànd moom doomu bàjjanam ñu wëri eh, bi ñu wëree noonu tamit ah, ci laa nangoo doomu bàjjanam bu gën a ndaw laaj ma numéro téléphone am ma ne sama doom jox ko ko ah, bi mu ko ko joxee liñ ci am mooy wax dëgg yàlla eh, ma gis ñu woo sama borom kër naka te booba chef de quartier moo ko woo ci la sama borom kër génn dellu siwaat ci kër gi xaw ma lu mu doon jël sax booba daanu na sax nag ak téléphone bi di laaj numéro sama doom bi mu foofu nag moom tiit naa lool ci laa barde jaaxle ndax tamit day am loo xam ne nit day xalaat magum jëmm rek ma daal di tiit waaw xam ne am na lu xew ci la ma sama sët ak sama doom ñu téema man leen bàyyi leen ma génn ñu ne ma déedéet ma ne ay yumu yumu ji mbaa jaamu la ñu ne ma la rek instant yooyu nag ci laa jékki-jékki dégg ay yuux mel ni lu jëm sama kër ma tiit daal di ba ma xale yi génn ci laa tombé sama boroom kër muy yuuxu comme jigéen ma ne ko mbaa jàmm mu ne ma asugaawa lii daal lu ma la mën a wax ñun lii lañ ci am muy mbetteel bu metti waaw loolu tamit ba tey bu dee yàlla dëgg rek la bëgg bi sama borom kër ñëwee laaj naa ko ndax gis ngeen ko mu ne gisuñu ko ma laaj borom këram it mu ne wax dëgg yàlla gis ko waaw loolu tamit mënuma la ci wax dara parce que ñi ma waroon a laaj muy sama borom kër ak ak ak sama doom ñoom laa mën a laaj te bi ma leen laajee nee na ñoom wax dëgg yàlla gisuñu ko kon man tamit man ndokk man mi demutoon kon mënuma koo gis. metti torop ba fii may waxee yow wallaay asim dem ba tey dama sibru parce que saa yu ma tëddee rek day mel ni xale bi dañ ma koo tegal dama koy gis ni mu doon di ma ko wan mi rek ma di ko gis metti na lool parce que xale bi kenn la woon ci man man dama koo bëggoon bëgg gi ma ko bëggoon nag moy ni ma melone ak yaayam mo taxoon ma bëgg ko xalé bu lu rafet la sin dama tok sama bammel non sama dom, waaw lolé de ma ngi koy gërëme suñ borom rek mo sama xam ci mom benn jikko diru ko juré mu ngi ni tok yalla rek la koy sédé dom juma ma nak nag borom moy maye moy xañe way ku ma yërëm la suma gis man man man sax bu ma ko man mi di la sin da nan ma yaay bal ma àq yaay bal ma ñaanal ma rek yaay suma amon do sonu ba bi suba la ñuy um koor wallaay laa sim la ñëw fekk ñu tere marché bi kenn jaayeetu ma toog sama buntu kër bi ma yegsee noonu wàcc ci taxeem daal teg saako ceebam bidon diwlin fukki kiloy suukar ñaari kiloy kafe teg meew ñaari tablette yi neen jëndal ko jabaram potu chocolat potu beurre ñëw tegal ko yëkkati 10 000 yàlla moo ma tiim teg ci sama loxo naan dama yaay lii day suma amon nga xam man ko yal dara paasal ndaw jot tam bay ñak wowit nak sur bobu jabaram ndax mom mo ni ci kër gi man sama walu wéy man lay la sel wokum ñu ma ne ko asukaay ah, ñu ma ko ah, comme lila pa wax non ci neeg bi rek mo fi sa borom kër mo indi li premier bi tamit dana ma yaay kay natul ma diw ma ko bal natt xale bi dama daan foog moom ma ko man natuma de xoolal def nga def togal rek bam doy ñu lekk ba suur ak xale yi daw di ñëw ci kër gi dama jobote na lepp ñepp lekk ba suur waaw loolu amoon na fi deug moy njëkk te moy muju kon lepp mom dañuy bayyi seen borom bi nga xamne mom rek ka fi ne te mom rek mom rek moy moy lepp yalla suñu borom bi leralal ñu ñepp lepp waaw ah, di ñaanal nak sama goro bobu wallahi la ci yalla na ci aljana ja gëna a ay mbokk it di yaayam wallahi la ci ma ngi len di sant wér wéré wéré a